asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax ziar leen di am mbégte saa ne dafa leen vidéo ñuy bés ci bi abonné leen cliqué leen ci bu ñu dugal ngeen mën ko seetaan bu leen fàttee ci commentaire yi di insister euh, bi bu baax a baax moom nag euh, jamono bi dafa def benn benn interview wax si boo et tout euh, boo xamante ne je vais être honnête avec c'est juste que nag li ma doon xaar xëy ko dina li ma doon xaar mooy ay but ay passes décisives affaire yooyu du côté de Nantes euh, impressionné moo noonu quoi xamoon naa ne aussi information yi boo xool si côté Instagram waxoon na li bu yàgg ah, que moom euh, origine papa mooy ivarien euh, yaay ji mooy sénégalais te dafa bëgg jouer Sénégal donc man maa ko doon suivre di xool compte Instagram ay réseaux sociaux à chaque fois Sénégal du fi xaw dina poster dina ci wax et tout donc voilà jusque nag mon seul problème c'est un milieu offensif boo xamante ne man du côté de Nantes daan naa gis ñu attaquant bon bii c'était pas comme tane won rek bon bo xolé saison bi lé euh prêté nañ ko Amiens Amiens nag bëri na ay Sénégal ay Formose Mendy yépp fofu lañ nekk donc euh, ak Aline Badji donc moom Ligue 2 française mooy football 25 matchs 2 buts léegi euh, moom poste yu mën a joué mën a joué ailier gauche ailier droite attaquant de pointe wala milieu terrain offensif presque 10 genre yooyu noonu quoi ndax soxla nañ ko pour il faut que mu gën a améliorer wu ndax xam nga donc c' est toujours bien nag nga dégg benn joueur na rêve la mu mu Sénégal parce que moom nee na amagul occasion waxtaan ak coach bi Aliou Cissé mais waxtaan na si ak kenn ku ñuy wax Abdoul Aziz Diagne pour mu def démarche yi mais bon il faut que mu mu wane boppam. wax na ne Côte d'Ivoire mooy pays papam mais mom euh, bëgg na pays papam trop di Côte d'Ivoire bëgg na leen lool mais bëgg na tamit trop Sénégal di di dëkku yaayam donc euh, ay membre am ay mbokam yoy ñom ñeneen ñoo sax Sénégal donc mom bu sañoon il a 28 ans bëgg na ñëw équipe nationale Sénégal ba tax na ci vidéo bi léegi dama leen wax ne rek am na leen vidéo bu spécial bu may préparé instant joueurs yëpp bëgg ñëw mais ñe ali Cissé ñan la war convaincre parce que mëno jël joueurs yëpp mënu nekk souvent ci commentaire dañ ma koy bind Mohamed joueurs yëpp mënuñu ñëw je suis d'accord avec vous mais da ngay jël priorité bi kan ak kan nga soxlé xam que ça soit euh, secteur bu nekk que ça soit défense bi milieu bi wala attaque bi li nga rek comme Aliou Cissé ni mu ko waxee si interview bi am na lu mu war a mën a

aspect offensif bi boo xoolee tey ji nga comparé ak joueur yu bëri am na ñu nekk Turquie ñu nekk deuxième division France ñu ko appelé ay bii donc il faut que mu gën a performer pour espérer euh, ñëw équipe nationale du Sénégal boo xoolee si le cas de Pape Ibnou Ba rek loolu la xas un joueur bu xam ne doon claquer des buts mais cette saison bu mu la Havre benn moment voilà bii demeetul noonu mu mujjee dem Mauritanie donc tamit xam nga donc te bu woon sax xëy na dem Mauritanie Sénégal mu nekkoon choix numéro un mbokk yi li mu nekkoon vidéo maa leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Football TV